mbokk yi sëriñ bi ne bisimilah asalaamualeykum mu ne leen di jaare suñu bopp di jaale mu ne ñu ngi jaale suñu bopp di jaale ñëpp ci bés bu métti bii ci Medina tey ne soxna si di dem ñuy tàggoot moom. ak àndandoo bii muy muy àndat. ak àndandoom gii muy àndat. ñoom ñëpp ñuy doomi Medina. ñoom ñëpp ñuy doomi Medina. doom yoo xam ne dem nañ ba àgg doon far far doon yaayi Medina. di doom yoo xam ne dem nañ ba àgg far doon yaayi Medina. lu barke. ndax lu barke. lu barke rek kay bàyyeekoo ci moom. lu barke rek mooy meññeekoo ci moom. xamul lu xew waaye biig dama gént. ne xew waaye biig dafa gént. gis Xuraysi mu ngi ci kaw ayat mu ngi ci kaw niir yi. di dagg. di dagg. naan maahi lii ndox rek la ndox rek la. ndox ku ne xam na ne mooy lu nekk. ndox ku ne xam na ne mooy yiw lu nekk. bon soxna sii di dem. bon soxna sii di dem. yaay la ci waa Medina yi. yaay la ci waa Medina yi. te mate ko. te yaay la ju nga xam ne. ndax yaay la ju nga xam ne. dafa fekk ñun ñii ñu nekk ay gone daara nekk ci daara ji di jàng. ne dafa fekk ñoom ñii ñëpp ñu ngi nekk di ay taalibe di ay gone daara nekk ci daara jiy jàng. bàyyi boole ñoo waa kër gi bu lekk jotee ñu indil ñu lekk ci daara ji. bàyyi boole leen waa kër gi bu lekk jotee ñu indil leen lekk ci daara ji. benn bés yaa roq jaw ne benn bés maam roq jaw indil leen reer. cere kese. cere kese. cere kese. ñu ne ko ñun duñu lekk cere kese de. waaye ñu bañ rek ko mu ne waaye lekk leen neexal leen neexal ñu bañ ne duñu ko lekk. mu ne bu subaa dinaa leen toggal cere gi. mu ne leen bu subaa dinaa leen toggal cere gi yàpp. waaye yóbbu sa ñu ne ko waaw waaye yóbbul sa cere jii nga indi d'abord. ñu dal ko fay bàyyi dem. ñu ko fay bàyyi dem. ñu toog tuuti rek gis mu ñëwaat. ñu toog tuuti rek gis mu ñëwaat. gàddu ñaari butéeli meew. gàddu ñaari butéeli meew. acca xanaa di ngeen reer nag meew a acca xanaa di reer bon cere ak meew ñu dal di ne ko waaw kay. ñu dal lekk ba mu jeex. ay loxoom ne ñaanal ma. mu tàllal ay loxoom ne leen ñaanal leen ma. bu ëllëgee ma mën a am lu ma leen defal ba mu kontaan loo bu ëllëgee ma mën a am lu ma leen defal ba mu kontaan loo leen. loolu ci la nekk ak ñoom ci daara ji. loolu ci la nekk ak ñoom ci daara ji. xale xale ndongo daara ni mu téyee ak ni mu yaradi xale ndongo daara ni mu léejee ak ni mu yaradi ko. waaye terewul yooyu yëpp gàtt ko ci ñun. waaye terewut loolu yépp gàddu na ko ci ñoom. ñu jëflanteeg ñoom comme li kii wax borom yërmande la. di jëflanteeg ñoom ci mbaax giñ seede ci moom léegi borom yërmande la. soxna su yaatu ci nit ñëpp. di soxna su yaatu ci nit ñëpp. kuy xeeñtu li bay bëgg rek mu nekk ci. kuy xeeñtu li bëgg rek mu nekk ci ak yow. xam naa ne Baye Daara la gënoon a bëgg ci jamono boobu. te xam na ne Baye. daara la gënoon a bëgg ci jamono jooju. amoon ci ñi nekkoon ci daara moo tax mu amoon itte ci ñoom ñi nekkoon ci daara ji. ci seen lekk ak. ci seen lekk suñu génnee. suñu génnee. néegam la ñuy dem. néegam la dem. lu neex ñu yàq lu neex ñu leen neex ñu yàq. lu leen neex ñu baaxal. dañuy gis xam ne. dañuy gis muy yaay joo xam ne. xol xol bu yaatu. xol bu yaatu. li xale yi def yépp nangu na ko. li xale yi def yëpp nangu na ko. du yëkkati ci kaw kenn baat bu ñàng. du yëkkati ci kaw kenn baat bu ñàng di la gëdd. li lii baaxut duñ ko def lii baaxut duñ ko def rek du passé foofu. lii baaxut du mu ko def lii baaxut bu ko def du passé foofu. loolu rek lay wax ak ñoom ci am ci kàddu yi teey. loolu lu tax. loolu lu tax. ki doon wax léegi wax na. ki doon seede léegi seede na loolu. nee na borom cosaan la. cosaan yoo xam di cosaan loo xam ne. di cosaan yoo xam ne. di cosaan yoo xam ne. gëstu yiw. gëstu yiw. gëstu mbaax. gëstu mbaax. gëstu lu kawe. gëstu lu kawe. ci lañ nekkoon. ci ba yàlla tasale leen nag bàyyi radiyallahu anhu. ñu nangul ko nangu goo xam ne. ñu nangul ko nangu goo xam ne. bokk na ci ñi gën a dëgëral Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. yaa roq yow mi itam. maam roqe jaw mi itam. ci ñooñu la bàyyeekoo. ci ñooña la bàyyeekoo. lépp loo lépp loo xam ne dafay dëgëral di baaxal. loolu nekkoon ak ñun bi nekkee xale ci daara ji. ne loolu la nekkee woon ak ñoom bi nekkee di ay tuut sànq ci daara ji. te xam ngeen ko nag daara moom xam ngeen ko rek. te goney daara moom xam ngeen ko rek. jafe la. lu jafe la. ku jafe ku jafe la. am yar ku am ku yare noo leen waaye ku am noo leen yaree. nga am ci ñoom loo xam ne. di nga am ci ñoom loo xam ne. ku dul yow mënu koo am ci ñoom. ku dul yow mënut koo ci ñoom. te jaw amoon na loolu ci daara naar bi. bi. te moo ko jëndal boppam. te moo ko jëndal boppam ci ñoom. daan ñu neexal bu ñu meree. daan leen neexal bu ñu meree. bu ñu géddee ne duñ lekk lekk leen. bu ñu géddee ne duñ lekk mu neexal leen lekk leen bañ lekk. seen baay seen baay duy gedd yéen tamit bu leen gedd. seen baay duy gedd kon yéen tamit bu leen gedd. ndax gedd nit ku baax du ko def. ndax gedd nit ku baax du ko def. wax leen ma lu ngeen bëgg rek ma jéem koo uti. wax leen ma lu ngeen bëgg rek ma jéem koo uti. waaye bu leen gedd. waaw waa Médina ngi nii. bon waa Médina ngi nii. koo xam ne bokk na ci ñi yar Médina. koo xam ne bokk na ci ñi yar Médina. ndax yar Médina mooy yar doomi Médina. ndax yar Médina mooy yar doomi Médina. nga xam ne. te ba nga yar yarewoo ci li nga xam ne. mooy li Médina tànn pour boppam. mooy li Médina tànn pour boppam. mooy diine. mooy diine. mooy yàlla. mooy alquran. diine yëpp diine ak li ci aju yëpp. mooy njub diine li ci aju yëpp. loolu la nekkee woon ñun. ne jikko rafet yooyu. moom la nekkee woon ñoom ñii. ñëpp dañoo fàtte ñeneen ñi du yaa ruq jaw yaa ruq ngay dégg. ba ñëpp dañoo fàtte ñeneen ñim dëkkat waaye yaa ruq jaw yaa ruq jaw rek ngay dégg. wala yaa ma jëm ñaareel ko. wala yaa ma jëm ñaareel ko. ci mbaax. ci bëgg njaboot. ci bëgg njaboot. ci baay. ci bëgg baay ci bëgg yëngatu baay. ci bëgg yëngatu leer ci bopp nit ñi. leer ci bopp nit ñi. ba ñu xam ne utalut boppam dara. jaami yàlla yi lay utal ci yàlla. jaami yàlla yi lay utal ci yàlla. bu ko defee. ñu ànd ak moom ci gis-gis boobu. ñu ànd ak moom ci gis-gis boobu. yàlla dimbale nañu ci leer. yàlla dimbale nañu yàlla dimbale nañu ci leer. dimbale nañu ci alxuraan. dimbale nañu ci alxuraan. dimbale nañu ci suñu diine. dimbale nañu ci suñu diine. tabax bii ak si fii. ba tabax bii ak si fii tey. jigéen ñu njëkk ñi daan xeex ànd ak baay itam jafe lool. jigéen ñu njëkk ñi daan xeex di ànd ak baay itam jafe woon lool. kenn ngi nii ci kuréel googu ku ñuy tàggoo tey. lii lii lii waa ji nettali léegi. lii bàyyi Sidi Arab nettali léegi. ku njëkk wax. ki njëkk a wax lim nettali léegi. ne daf daan dem kër yoro. daf daan dem kër yoro. lépp lu bees ci diine ak xam-xam fii ci Medina. lépp lu bees ci diine ak xam-xam ci Medina. mu dem jottali leen mu dem. jottali leen ko. te ootekat ci yàlla mooy mel noonu. te ootekat ci yàlla mooy mel noonu. ndax yonent moo ne. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne. ci man. jottali leen jëlee ci man. ngile benn kaddu la. ngile benn kaddu la. yow nekkoon na ci loolu. Jaw nekkoon na ci loolu. mu dégg ci baay. lu mu dégg ci baay. te mu war a ci nit ñi. te mu war a ci nit ñi. àggali. dana ko àggale. ci façon boo xam ne. ci façon boo xam ne. dangay kontaan di ko déglu. kontaan di ko déglu. nit dina jottali. nit dina jottali. waaye du am darajaay jottali. waaye du am darajaay jottali. buy jottali. am darajaay jottali. am darajaay jottali. ñëpp dañuy dégg sa wax. yaa roqe jaw malgré ay xale ñu ngi woon ci ronam. ne malgré ay xale ñu ngi woon ci ronam. waaye du fàtte mukk. waaye du fàtte mukk. ne moom dafay préparé. ne moom dafay préparé. génération boo xam ne. génération boo xam ne. ñooy ñëw. ñëw ëllëg. te dañoo war a mel nii. te dañoo war a mel nii. war a baaxee te dañoo war a baaxee nii. dañoo yëkkatikoo nii. te dañoo war a yëkkatikoo nii. dañoo war a am lu nekk nag. te dañoo war a am lu nekk nag loolu. yaa roqe jaw def na ci dundam yëpp. moo tax yàlla may na ko mu dund ba fekkee lu bëree bari loo xam ne. ci soppeeku goo xam ne. soppeeku gu jëm kaw rek la. soppeeku gu jëm kaw rek la. ndax jamono boobu. ndax Medina jamono boobule. bokkewut ak Medina tey jii. lépp na tey jii lépp yàlla indi na ko fi. te fekk bokk na ci soldat yi daan démb pour Medina ak fekk bokk na ca soldat ya nga xam ne doon nañ xeex démb ngir Medina aksi fii ba romb ko. yàlla may na ko fekkee ne lu bëree bëri na lu bëree bëri. yàlla may na lu bëree gis na lu bëree bëri. koy yokku. daf koy yokk. lu koy yokk. lu koy yokk. ci xolam. ci xolam ne lim doon def lu wér la ne lim doon def lu wér la lim doon def lu dëggu la lim doon def lu aw yoon la alhamdulilahi rabil alamina yàlla may na ko loolu yëpp yàlla may na ko loolu yëpp alhamdulilah lu bëree bëri mu dund lu bëree bëri mu dund alhamdulilah lu bëree bëri nee na boo rombee juróom-ñetti at rek boo amee rombee juróom ñett fukki at ndax yàlla na na boo rombee juróom ñett fukki at rek wala juróom benn fukk wala juróom benn fukk yàlla def naan malaaka yi bàyyi kii bu ko toppati bàyyi leen kii bu leen ko toppati ci dara lu mu def seen yoon nekku ci lu mu def seen yoon nekku ci bàyyi leen ko sama jaam la boo xam ne goreel naa ko bàyyi leen ko sama jaam la boo xam ne goreel naa ko yaa roqi jaw romb na at yooyu. kon na daraja boobu. yonent nee na. yonent bi sallallahu wa sallam nee na. bu yàlla nattoo jaamam feebar. bu yàlla nattoo jaamam ko tëral ko. tëral ba nga xam ne lim doon yëpp mënatu ba nga xam ne lim doon mën yëpp mënatu ko. yàlla dafay hebal ay malaaka ñu ñëw uutu ko ci loolu. yàlla dafay hebal ay malaaka ñu ñëw ko ci ci lim daan def yëpp. malaaka yi di ko def palaasam malaaka di ko def. malaaka yi di ko def uutu ko ja. yool bi di wàcc ci moom. yool bi di wàcc ci moom. yaa roqe yegg na ci maqaam moomu. am na daraja jooju. am na darajaay. yàlla may na ko. yàlla may na ko. ay doom yoo xam ne. ay doom yoo xam ne. mokkal nañ alquran. mokkal nañ alquran. ay borom xam-xam lañ. ay borom xam-xam lañ. nit ñu am njëriñ lañ. nit ñu am njëriñ lañ. di ko delloo ci jaami yàlla yi. di ko delloo ci jaami yàlla yi. yàlla may la. loolu daraja bu ko yàlla may la. moo booy ut utile ci yàlla moo tax booy ut yàlla. bu la mayee dootul jeex. bu la bu la yàlla mayee dootul ci keneen nag. ci keneen nag. kooka bu jeexee rek nga jeexal. kooka bu jeexalee rek nga jeexal. méngoo. nañu yàlla méngoo yaa ci suñu yëngatu ak suñuy dal. ci ci suñuy dal. ak nañu yàlla nekkal. yàlla ci yërmandeem. ci mbaaxam. ci kaweem. ci xamam. foofu yëpp yàlla nañu fa yàlla méngoo. nekkal ñu yaa bu ñu ko nekkalee mu nekkal ndax mu ngi wax na bu ñu ko nekkalee mu nekkal ñu te ñun amuñ nenn lu ñu yàlla di nekkalee amuñu nenn nu ñu yàlla di nekkalee lu dul loo xam ne moo ko fay def moom lu loo xam ne moo ko fay def moom moom moom yàlla bon yal nañu yàlla nekkal ci suñ boolee soppandikuwaay guddeeg suñu bëccëg yëpp yal na ko yàlla nekk. suñu ko yàlla nekkal. soxna su baax a ngi nii dem na. ne soxna su baax a ngi nii dem na. fekki moromam yim daan àndal di xeex pour ko. ngir Medina yëkkate bu demee dina am lu leen nettali. bu demee dana am lu mu leen nettalil. ci Medina googu ñu doon xeexal. yal na yàlla yokk Medina yaa yal na ko yokkee ay doomam. yokkee ay ñi ci aju ñëpp. yal ci aju ñëpp. doom fi dëkk doom yi fi dëkkul yëpp doomi Mérina lañ. doom yi fi dëkk ak yëpp doomi Mérina lañ. ñooñu nekkoon démb daan ñaanal Mérina. ñooñu nekkoon démb daan ñaanal Mérina. di ko defee nu nekk nag. di ko defee nu nekk nag. te du Médina tey jii de Médina bu jafe woon la. te du Médina jii de Médina bu jafe woon la. lekk new lekk néew. lekk néew. lekk jafe. lekk jafe. colaay jafe. colaay jafe. loolu yëpp. loolu yëpp. waaye ñooña gisuñu woon loola. waaye ñooña gisuñu woon loola. yàlla mi leen indi Médina rek yàlla moom lañu leen indi Médina rek. yàlla mooma lañu gis. ñu nekkal yàlla rek mu jeex. ñu nekkal yàlla yàlla nee na boo ma nekkalee ma nekkal la. yàlla nee nekkal la. nag ci loo xam ak loo xamut. xam ak loo xamut. yëpp loolu yëpp daf lay dolli rek. yal na ko yàlla def muy Mérina. ak ñi aju ci Mérina yëpp. ak ñi aju ci Mérina yëpp. ay doomi Mérina ay doomi yu góor ak yu jigéen ak. yal na yàlla yëkkati leen barkeel leen ak suñu gétt yëpp. dolli leen. dolli mari na. ba mu àgg fu. nit ku baax war na ko yàlla may mari dolli mm. fu nit ku baax war a àggale dëkkam rek yal na yàlla may doomi Medina mu àggale ko fa. yàlla mën nañoo defal loolu. yàlla mën nañoo defal loolu. ci kaw nag topp yoon woo xam ne waaye ci kaw nag topp yoon woo xam ne mooy yoon ñi lal Medina yoon woowu ñu toppoon rek ñu ñi rek ñu topp ko gëm yàlla gëm yàlla góorgóorlu ci ay ndigalam góorgóorlu ci ay góorgóorlu ci di ko topp wëtande ko ay tereem kéem ko ay tereem ci suñ kéem kàttan bëggante ngir yàlla bëggante ngir yàlla jokkalante ngir yàlla jàppalante ngir yàlla. jokkalante. di jokkalante ngir yàlla. loolu yëpp. la fa mag ñooñu mag ñi tabax dëkk bi ba mu agsi fii. mag ñi tabax dëkk bi ba mu agsi fii. ci lañ nekkoon. ci lañ nekkoon. yal nañu ci yàlla nekkaloo daañu man. yal na yàlla fay leen seen taxawaay bu rafet bii. Medina am na jafe-jafe tey. Medina am na jafe-jafe tey. yëpp ak ñu dul waa Medina daje nañ ko wóor leen na ñoo ko bokk tey waa Medina yëpp ak ñu dul waa Medina ñëw nañ daje seen ñun pour wan ñu ne ñoo bokk ak ñun lii loolu dina yombal jafe-jafe yombal jafe-jafe yal nañu yal yàlla saxalee ci noonu yal nañu yàlla saxalee ci noonu ci noonu te barkeel yëngatu yëpp te barkeel yëngatu yëpp ak dal yi ci zaahir ak ci baatin salaamaaleykum wa rahmatullah defar